am ami internaute di Sunugal 24 dal leen ak jàmm seen bu doy waar moo xew tey ci suba fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Mariste foofe nag benn soxna boo xamante ne nag dafa gaare woon ab wotoom daal di dugg ci Ecobank ba nga xamante ne mu nekk ci diwaanu Mariste mu gaare fa nag ab 4 x 4 bu weex ba mu duggee ci biir la ko nag benn waay daal di dox a gannaaw sàcc woto boobee nag daal di koy dawal ba mu dawee nag bile woto ba dugg ci benn koñ foog ne nag mën na faa rëcc ndekete nag koñ boobu boobee impasse la maanaam nag amul fenn foo xamante ni nag dafay jaar ah, ci jamono boo xamante ni nag am na ay liggéeykat yu nekkoon ca bile douane ñu daal di nag yuuxu askan ba daal di génn ñenn ci ñoom ñettee teewe bile seen ne nañu nag bi ñu ñëwee yem ci bile waay nga xamante ne nag moo sàcc woto bi daf leen nag bëggoon a réeral ne leen nag sàcc bi daal dinay daw ñenn ñi nag gëmuñu ko daal di koy songu ba ñu ko tàmbalee songu na ci la génn nag a fetal waaye nag mujj nañu ko maîtriser daal di koy nag jébbal gendarmerie gendarmerie sax ba ñu ñëwee ci bile bërëb dañu ne askan bi bu kenn laal wala sax ngay jege bile woto tijji nañu nag ab l'enquête soxna si nga xamante ne nag sàcc nañu ab wotoom ba mu ñëwee dafa daal di jaaxle dafa rek yem ci seen bi gisatul ab woto muy daw di ko wër nit ñi daal di koy téye expliqué ko nag li nga xamante ni jot na fa xew woto ba sax am na ay dégâts yoo xamante ni jot na ci am ndaxte waa ji daf ko mbëkk ci benn jàllu xeer boo xamante ni nag mu nga woon ca bile koñ. ak ah, jamono ji nag sàcc bi mu ngi ci diggante dund ak dee ndaxte nag askan bu mbarista ak ñi nga xamante ni ah, teew nañu bile seen dañ ko jàpp nag dóor ko ba mu dee daadee ah, sonn gendarmerie jamono ji mu nga ca bile bërëm ngir def li nga xamante ne moom mooy ab constat